yéene daf ko jënd dafay rey seen borom du màbb kër yi di leen dàq te réew yu mag yi ci àddina bi demee ni Amérique ak fareek moom ñëpp dañu ànd ak moom ci politique boobu ngir xatal fa arab yi xaj na ngir itam bañ lislaam gën tasaaroo dem nañ ba egsi ren ci ne ca baytul maqdis jàkka ju mag jooju nga xam ne mooy jàkka ji njëkk ñu ne kenn du fa nopp ci ne microphone yëpp ak haut-parleur yi lañ ko arrêté kenn dootu fa noddu ndax noddu dafay gêner nit ñi loolu yëpp nag jubluwu ci lu dul xatal Palestine yi waa réew ma xatal diine l'islam xatal nit ñi nga xam ne dañ koy dem ziyaare ji jàkka jooju loolu rek lañ ci jublu waaye mu ne gis na taxawaayu Medina Baye ci loolu dalee ko ca Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ba ci xalifaam yëpp ba ci Cheikh Ahmed yi mii nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahima tey at mu jot danañ def yow mu Palestine bis boo xam ne Palestine lañ koy tuddee ci bis bu xat nii di bisi gàmmo waaye bis boo xam ne itam jullit ñi dinañ bàyyeekoo fu nekk ñëw fekk si Baye Niass radiyallahu anhu bëgg leen a déggal ne leen ci bis bii ñun ñi ngi problème boo xam ne nañ ñaan yàlla ak nañ góor góorgóorlu ñun politiciens yi nga xam ne ay jullit lañ ba yàlla delloo suufu Palestine ci Palestine yi nii loolu yàlla na ko yàlla def loolu mu ne mi ngi ko taxawaay boobu ñoom gis nañ ko bu baax xam nañ ne ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko fi ñu ngi ñaanal toppam bàyyam yëpp fu ñu mën a nekk yàlla na leen yàlla yokk wa rahmatullahi wa barakaatu ah